L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه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 ne amana rasulu yonent bi deggal na wóolu na ne lii ñu ko waxyu di alquran mi ngi bàyyi ko ci boromam amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wóolu na ne lii ci boromam la jóge gëm na ko walmuminun ñi gëm yàlla ñëpp itam dëggal nañu wóolu nañu ne alquran ji ci suñu borom tabaraka wa la jóge kullun amana billah mu ne ñëpp ñu gëm yàlla dëggal nañu suñu boroom tabaraka wa taala ak amam wa malaikatihi dëggal amuk ay malaikaam wa kutubihi ak wàcce gu mu wàcce ay téeréem wa rusulihi ak yabal gu mu yabal ay yonentam laa nu farriqu na ahadin min rusuli te seen biir ngëm googee duñ ca tàqale diggante kenn ci yonent yàlla yi benn yonent boo weddi rek wedd nga yonent yëpp ñoom ñëpp ngay boole gëm doog a mën a am ngëm gu mat sëkk mu ne waxaanoo dañuy wax ñoom ñi gëm yàlla ne sami'na wa ata'na dégg nañu lii jóge ci suñu borom tabaraka wa taala yonent yi jottali ko waaye itam topp nañ ko la cay ay ndigal ñu di ko jëfe la cay ay tere ñu di ko baax xufraa nag ñuy ñaan nag suñu boroom tabaraka wa ak njëggal mu jéggal leen seeni bàkkaar ci mbaaxam kufranaka rabbana sunu borom sak njëggal mom lañ yaakar mom lañuy ñaan ci sak mbax wa ilayka masir yow rek nak yaay ki nga xamne ñepp seenu mujj ci yow lay ci wat ñepp ci yow la mujj ñi gëm ak ñi gëmut ak ñi ñi ak ñepp ci seen borom tabaraka taala lañuy delu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 diine yàlla ji lu jàppandi la benn coono nekku ci suñ boroom du sàkku ci jaamam ñi loo xam ne amuñu kàttanu def ko yàlla lu mu farataal rek digal ko jaam ñi mën nañ koo def lu mu leen tere it mën nañ ko baax laha ma kasabat nee na bakkan bi lépp lu mu fàggu ci lu baax loolee moo ko moom la cay jóge ci aw yiw ak tuyaaba lépp moom lañ ko fay ko def lu baax daal yow lañ koy fay waaye wa alayha maktasabat tegu na ci kawam itam la mu jéem a fàggu ci ñaawteef kon fàggu lu baax bis nga ni mu yombe moo tax kasabat rek la wax fàggu ñaawteef nag yombut moo tax mu ne iktasabat lu baax dafa yomb lool ab safaan nag su borom ngir yërëm jaam ñi bokk na ca sax li tax bu def ko muy lu jafe mbooleem xeeti mooy yàlla yi daanaka coono nga cay boole sa alal nga cay ñàkk doo koo mën a def jaamu yàlla nag li ci gën a bari doo ci ñàkk benn alal te bu aaja alal nit ñi mën nañ la caa dimbali wala sax bu aaja alal du la war lu baax bu aaja alal te amoo alal ja loola du la war moo tax kon mu ne lu mu def ci lu baax moom lañ koy fay waaye lu mu jéem lu bon ko def yaa ko jéem ndax yombut woon ci ab safaanit ba tey ci kawam lay tege rek alayha ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يالا سونو بروم نيغي لاي ñaan bul nu mbugal bul nu jappé lo xamné kat dañ ko faté ci lu bax lu warona def ci lo faratal ci nun nu ko def nu faté ko ba defun ko wala nu joom ba tabbi ci lo xamné lolu téré won yépp nu ko jappé te yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee suñ borom def na lolu lepp lu ngeen faté wala lu ngeen joom loola du leen ko jàppe boo fàttee nag boo fàttalikoo da ngay gaaw a dellusi ca la nga fàtte woon foo fàttalikoo rek da nga cay daal di jóg boo juumee it buñ la jubbantee da ngay gaaw a dellusi nag waaye su fekkee da ngaa wéy ca njuumte la kat du tudd njuumte léegi tey lay firi fàtte itam soo fàttalikoo ba noppi wéy ca li muy tekki mooy kon ak tayeef lay doon ndax ñaar yooyu yëpp du coobaree borom fàtte ak njuum du coobare su demee ba coobari dugg ci rek kon nekkatul fàtte nekkatul jum rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala lazina min qablina yow suñu boroom yàlla boonu togg ay jëf yu diis yoo xam ne duñ ko attan ni nga ko togge woon xeet ya jiitu woon yooyu tegoon nañ leen ci ay xeeti jaabu yàlla ak xeeti mbugal yoo xam ne ci ko def nangam lañ la war a def loola lu diis la woon ngir doon leen ko mbugale loola nag yàlla moo nu ko teg kama xamaltahu ala lasina min qablina ni nga ko tege woon ñenu jiitu woon rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi yow yàlla sunu borom yàlla boonu teg ci ay eh, jëf toggunu ay jëf yoo xam ne amun ca kàttan ci def ko wala nattoonu ay musiba yoo xam amunu katan ci mën koo muñ loo xam ne daal amuñ ci kàttan bu dee lu ñuy jëf la mënuñu ko bu dee muñ la mënuñu ko yooyu yëpp bonu ko teg waafu anna yal na nga nu baal moy faral nu suñuy bakkaar lana nga sutural nu sutural suni ayib suñuy sik. Warhamna te nga yeeram nu def lu bax jeme ci nun saxal sax sa lu bax ndax toujours lu baxam mom suñu borom mo nek ci minde fi ku teggi loxom ci yow rek dutu fa nek anta maulana yow suñu borom day yaay ki mengo suñu mbir yépp yaay ki doxal suñu mbir yépp itam fansurna alal qawmil kafirin yalla nga nu may ndam ci kaw ñi nga xamne dañoo weddi sa diine dañoo weddi sa wet nek kenn kiñ wara jaamu dañoo weddi sab yonent ñep yalla nga nu may ndam ci seen kaw nga def mujj gu rafet ga ak ndam la ñeel ñi gëm yàlla ci àdduna ak ci àllaxira bismillahi rahmani rahim alif lam mim loolu lañ ca waxoon ca njëlbeenu suratul baqara rek moom lañ cay wax mooy suñu borom tabaraka wa bokk na ci li muy tegtale di wane téere bi tëleloo gu mu tëleloo kenn ngir nga mën a indi lu mel ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu mu saraa walla lu mu leeral ci araf yooyu baat yooyu ba tax na kon doomu aadama yi di wërtu jéem a toggoo coonab di jéem a xam la ci suñu borom tabaraka wa taala jublu bokk na ci daal foo ko fekk moom fu mu ko tuddee rek day daal di tudd téere bi mu ne alif laam miim ne zalika al kitaab alif laam miim saat kitaabun unzila ilayk alif laam ra tilka ayatul kitaab gis nga fii itam yu mu ko tuddee daal di nazzala alayka al kitaab moo ci daal di tegu kon alquran day junju ak ijaasam tëleloo gu mu tëleloo doomu aadama allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum suñu boroom yàlla mooy ki nga xam ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom mooy ki melowoo melokaanu dund bu sax bu mat sëkk boo xam ne buy wéy la ca na mu yell ci ab jëmmam moom suñu borom tabaraka wa taala na mu yàlla ca màggam ga mooy ki taxawee mbir yépp itam mooy alxayyum lépp moo ko taxawee borom boobu nag nazzala alayka alkitaaba bil xaq moom moo wàccee ci yow yonent bi téere bii moo ko wàcc ci yow ci dëgg benn sikki sàkk nekku ci musaddiqan lima bayna yadayhi téere bi nag di seede di dëggal li mu fi fekkoon ci ay téere yu ko jiitu woon ak ay yonent yu la jiitu woon alxuraan bi mu ñëwee weddiwu ci benn yonent weddiwu ci lu benn téere waxoon lépp daf koo saxal wa ansala tawraata moo wàcce woon tawraat ci muusa wal injiil moo wàcce woon itam injiil ci isa lu jiitu muy wàcce alxuraan min qablu lu jiitu alxuraan di wàcc hudan linnaas téere yooyu itam la leen toxoon a jóg mooy jubal nit ñi rek jubal nit ñi nga xam ne am nañu ragal yàlla jubal leen ci ngëm ak lépp loo xam ne lu yeweenal seeni mbir la ci àdduna ak ci àllaaxira téere yooyu jiitoon yépp ñoom it loolu dañ seen jubluwaay comme ni nga xamee ne alxuraan itam loolu mooy jubluwaay moo tax mu ne wa anzala alfurqaan bu wàccee tawraat ak injiil من قبل هدى للناس القرآن واتنا إنكم ممتم هدى للناس شهر رمضان الذي أنسل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس بابين من كثير وبينات من الهدى والفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام من نيغا خامني dañoo weddi ay suñu borom yii mu wàcce moo xam ya jiitu woon la ak bii nga xam ne mooy alquran ku weddi daal lu bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala ñoo ñee day mbugal mu metti mu tar moom moo leen ñeel ëllëg azabun shadid wallahu azizun tuntiqam suñu borom tabaraka wa taala ku sañ la ci nguuram lu mu ca soob loola cay am lu ko ca soobut du ca am aziz mooy koo xam ne kenn mënu koo not di amal lu mu bëggul mu am wala ngay tee lu mu bëggoon mu am nga tee mu am kenn mënu ko kooku mooy aziz zuntiqaam boroomuk fayu la ci koo xam ne dafa weddi ay layam weddi ay tegtalam weddi wéete gim wéete ñu jaañu jaamu ko moom rek ku weddi ah da nga dajeeg mbugalu suñu borom tabaraka wa taala borom mbugal la moom borom bi tabaraka wa taala waaye nag mbugal ma day fekk kañ koy teg ci kawam moo def la tax mu yeyoo mu intiqam luñ def nit ki loo xam dañ ko jëf jum jëf inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi as suñu boroom xam-xamam bi peeg na daj na wër na bindéefam yépp kenn génn ci laa yaxfa alayhi shay dara lu mu néew néew rek gannaaw lu am la rek umpul suñu borom tabaaraka wa taala moo xam ci suuf la nekk wala ci asamaan la nekk kon kon ku nekk foo toog war ngaa xam ne say mbir yépp suñu boroom tabaaraka wa taala xam na ko te itam moo ko saytu ndax amna bindef yu la gëna a tuuti fuuf te teewul suñu borom xam na fu ñu nekk xam na ci lu ñu nekk moo leen di wërsëgal mooy tax ñu mën a dund mu ne ma min daabatin fi l ard wala tairin yatiiru bi janaaxayhi illa umamun amsaalukum amul dara luy wala muy naaw ci jaww ji lu dul ne ay xeet la yoo xam ne ñi ngi mel ne yéen nit ñi ni leen yàlla saytoo yéen nit ñi noonu la saytoo yooyee illa umumun amsalukum huwa allazi yusawwirukum fi l arxaami kayfa yasha suñ borom tabaraka taala mom rek mo weto bind moy bind doomu adam moo koy melal ni mu mel ca biir ruux yaay ya bañ nekkee ca biir yaay ya leen ëmb ca ruxum ya foofa leen suñu borom di joxe melo wañum yor kay fa yasha naka mu ko soobe nag noonu la ñuy mel foofa itam lay bindee lay dogale seeni mbir góor lay doonam jigéen lay doon ku taaru lay doonam ku taaruwut lay doon ku texe lay doonam ku texe di lay doon yooyu yëpp suñu boroom mu ngi koy dogal ca ba ñu nekkee ca biiri yaay ya ca raxum ya laa ilaha illa hu al azizul hakim amul kenn ku yeyoo ak jaamu ci dëgg ku dul moom borom bi tabaraka wa taala moy ki nga xamne mo sañ ci nguram lu ko ci soob rek moy am lu ko ci soobul du am kenn mënu ko not ci waye al hakim moy ko xereñ ki ci ay dogalam ak ay teralinam ba len lu nekk fam ko tek rek foofa rek la wara tege huwa allazi anzala alayka alkitab moom borom bi tabaraka wa taala moom rek ki wacce téré bi ci yow mom rek moko wacc téré bi di alquran mom moko wacc ci yow muhammad minhu ayatun muhkamat amna ci alquran nak ay aya yo xamne yu leer lamuy tektal la lamuy jangale la te moy aya ya nga xamne lamuy jangale dom adama yi munuñu ko xam ci seen diine lu aju ci seen pas-pas lu aju ci seen jaamu yalla lu aju ci seeni jëflante lu aju ci seeni jikko yooyu ay yi cay wax day leer nañ kitabun fussilat ayatuhu foofu moom dañ koy tafsil ba mu leer minhu ayatun muhkamat lañ tud muhkamat amul benn taawil beneen bu ko nit mën a taawil li muy wax moom lii rek la hunna ummul kitab mu ne yooyee nag ñooy cosaanul téere bi lépp lu la lënt ci yeneen aaya da koy delloo siwaat ci biir aaya yii nga xam ne leer na ci nga koy dugalaat ci biiram su ko defee daal di dégg lañ ca bëgg a wax raddul mutasaabih ilal muhkam moo tax mu ne hunna ummul kitab ummu moom xam nañ ne ndey eh, ñépp ca la ñuy dellu siwaat wa uxar mu ne am na yeneen aaya nag yoo xam ne moom mutashabihaat mana yu nuro la ci ay mana man na tektale li man na tektale le ay man na jamtalu limuk ay makna ki man na ko dégg nii ki man na ko dégg nii waaye la len di àtte nag takale len moy suñ ko delsee ci ya nga xam ne muxkamaat yàlla ya lañ wax aya ye wax ji ci deppok lola lolay wax ju jub donte nak man na ci andi jenen wax waye bo ci andee jenen wax jo day yi lola mom du doon lu wér ndax lépp day wane ijaasul quran rek lele mu waxee noo xam ne suñu borom dafa dul mbindeef yobut ak mbindeef yi moo tax mbindeef yi mënuñoo xam léppam lam bëgg ñu xam ko rek la ñuy xam wala yuxituuna bi shayin min ilmihi illa bima shaa xam-xamam bi te alquran xam-xamam bi yàlla téereb yàlla kon lim ci bëgg ñu xam ko rek la ñuy xam mën na cee wax loo xam ne jubluwul ñu xam dëgg dëgg dëgg lam ci bëgg a wax da ciy wane rek kattanam ak nu doomu aadama yi tëlee ci andi lu mel noonu waaye lu leen ca soxal nag nga xam dañ ko war a xam moom loolu moom dañ koy xam ndax wax mën ngaa dégg wax ji waaye caagee ni lépp la soxal am na ca loo xam ne sa yoon nekku ca xamoo ko ca yàllay waxal xamoo itam lu tax mu wax waaye yow seetal la la ca soxal rek nga topp loola mu ne fa am moo tax mu ne fa amal la siina fi qulubihim zayqun ñi nga xam ne moom seen xol ak jàng da caa nekk ñooñu jàng di wàcc ak njub daa nekk ci seeni xol fa yattabi'una ma tashabaha minhu ñoom aaya ya ñuy topp ak di ko gëstoo ko seet ak di ko wax mooy yooyee nga xam ne tasaabuh am na ci maanaam ay maanaa yu wuute mën nañ ko caa dégge su ko defee ne ñoom lañ bëgg dugal ci seen baatil foofu lañ koy dugal boo waxee ñu ne yaa ko déggee noonu waaye may itam ni laa ko déggee luñ ca jublu ibtigaa al fitna pour sàkku fitna rek andi ay lënt lënt ci nit ñi ba mën caa jaaree nag réeral leen waaw nit ñi dem ba di leen duteloo ci loo xam ne lu wér la su ko defee nag bañ jaaxle su ko defee nag nga daal leen wax ne kon fii ngeen war a jaar li mooy yoon wi wabtigaa ta'wili ak nak di jema sakku tawil taawil wulbati waxi suñu borom tabaraka taala jëme ko ci seen mazahib batila yoy muy seen yoon yoy ñu fental seen bop te lepp di neen ñu bëgg nak wulbati waxi suñu borom tabaraka taala jemele ko ci loola mu mel day deggal lañu wax te wama ya'lamu ta'wilahu illa allah nee na alquran tawilam muy la muy firi dëgg dëgg dëgg la muy mujj la muy wax fa muy mujj dëgg loolu yàlla rek moo ko xam moo tax mu naan yow ma yati tawiluhu yow alquran dëgg yow mal xiyaam lay firiku lay leer lim la doon wax lépp boobaa dag ci teg bët yow ma yati tawiluhu yaqulu lasina nasuuhu min qablu qad jaat rusulu rabbina bilxaq ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon alquran weddi ko ci àdduna mooy min qablu foofee nag la ñuy gis ne alxuraan ndeke li mu doon wax mu ngi nii nag booba nag la ñuy doog a wax ne ndeke yonent yi kat lañ indi woon muy dëgg xat jaa at rusul rabbina bil xaq kon boo dee dangay bëgg a xam lépp alxuraan lenn lu nekk nga xam ko loola moom yow yowmal xiyaam lay firi ku dëgg waaye nag li nga ci xam ne moom dalaa yitteel nga war koo jëfe walla loo war a ba loolu moom leer na nañ ñi moom mu ne war raasiqoona fil ilmi ñi nga xam ne nag ñu jekku xam-xam lañ ñu dëgër ci xam-xam bu leer lañu yor ñooñu day moom bu ñu gisee aaya yu mel noonu yaquluuna amanna bihi dañ koy gëm donte mënuñu peeg aaya ba lam muy wax lépp du tey rek dañuy gëm ne ci suñu borom la jógee kullun min indi rabbina lépp mi ngi bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala وما يذكر إلا أولو الألباب أمنا نيوي وخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون مانا يالا أك برم خم خمي نيوغ خم ديدت واي والراسقون جي تامبلي وخلا نكل معطوف جي إلا الله نخون يقولون جي كون بابا محلا جي آراب دولير واي والراسقون في العلم يقولون آمنا به جملة بابا خبري راسقون في العلم boo ko seetee sax ci kaabil bi illa allahu jooju waqf la wa maa yaalamu tawilahu illa allah wax jooju foofu la yem mu ne nag war raasiqoona fi l ilmi nag yaquluuna amanna bihi gëm nañu aaya mutasaabihaat yooyu kullum min indi rabbina lépp mi ngi bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala wa maa yazakkaru illa ulul albaab kenn du mën a fàttaliku nag alquran day fàttali waaye kii fàttaliku nag jariñu ca fàttaliku ga mën a settantal maanaa ya ca anam gëwér loolu mooy boroom xel yu mucc yi xel yi nga xam ne daray bànneex lalu ko amul dara lu ñu ci bëgg laxasaale ci biir mais ki nga xam ne daa fent aw yoonam fent ay ngiram bëgg ca jaarale nit ñi ba noppi nag bëgg koo wutal ay lay ci alxuraan ñooñu mooy ñi nga xam ne seen xol setut seenum xel itam muccit gis nga aaya boobu wax ci suratul jumaa wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim ñeneen ñoo xam ne ñëwaguñu am na ñuy fent seeni mbir di woote wa sax ak yonent di wane ne axarina jooju ñoom la ñoom seen diine jooju wala seen yonent googu moom la suñu boroom doon juñu foofu xam nga loolu bokk na ci ayat mutasabihat yi lamma yalxaqu bihim wa huwa al azizul hakim waaye loolu boo ko delloo ca muxkam ba muy xaatamu nabiyin Maka kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatama nabiyyin ko kam wax kam lu leer nañ la ki mu tej yonenti kon bo bëggee ne suñ borom neena am na ñeneen ñuy ñëw kon suñ yonenti bi ñëw mooy kooka loola eh, ak jeng la waaye beneen aaya leeral nag kooka mooy muhkam bi ca ngay delloo mutasabih bi ربنا لا تزغ قلوبنا gis motax kon baña jeng ba sab xol ak jeng di ca ne ba ngay wacc deug di top ak njubadi mom la jam bi wad ñaan boromam lol bañ ko dal rabbana la tusi qulubana yalla bo wul suñuy xol muy bayyi ak njub baada isadaytana gana bo xame ne jubal ngeenu gana bu jubé ba top diiné l'islam Yal nañ ci sax bo gisee ñu ñaan sabat lool la ba na ñu ne ci diine ba yàgg ñu wëlbatiku gëm leneen lu wuteeg alquran ak sunna kese kese gëm yeneen i mbir yu bees yu nit ñi andi wa hab lana min ladunka rahma ya suñu borom ñi ngi lay ñaan ci sax mbaax ak sa ji yaatu ji nga defal nu yërmande jooju te mooy bañ a jàngal suñuy xol suñuy xol sax ci dëgg ba bañu dajé mom borom bi tabaraku taala innaka antal wahab yow rek kat yaay maye wa kon bi yow yaay rek la itam kula sop rek la go xam ya koy jox lo xam du ànd rek la ya koy may lu la sop lo xam sax doko rek la ci ay jëfëm dang koy may rek innaka antal wahab ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه inna allaha laa yuxlifu lmiaad yow suñu boroom noo ngi saxal ne di seede ëllëg da dajale nit ñépp ci bis boo xam ne amul sikki sàkk ak dikkam te mooy bisub yowmal xiyaam ndax yow kat doo wuutal ab dig te dig ba moom jàpp nga ko ba noppi yàlla jàpp na dig ba nee innal awalina wal axirin قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وخال نانيو جيك نياك نيو مجي دنج لين داجلا تي دات بو خامني بونو خاملا كون نك گم نانيو لولو نه داغا داجال نين نيب تي بيس بو خامني سيكي ساك امول تي ديكو بيس بوبو ان الساعه اتيه لا ريب فيها يوم القيامه داي ديك امول بن سيكي ساك تي ديكام كو ان الله لا يخلف الميعاد يو يالا كات دو ووتال اب ديك دو فوسي اب راندي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار نين نيغا خامل دانيو ويدي ديني دغ جيد الاسلام ويدي يوننتي بيغا خامل موم لا يالا مودي يوني مو تيج nubuwa di muhammad sallallahu alayhi Wasallam. sallam ñooñu day bu ñu jàppee ne alal ji ñu am ci àdduna ak ay doom wala mbooloo tax na ñu jàpp ne mën nañoo lool dana leen jariñ dara fa yàlla ndax doom dañuy jàpp ne ñoom am nañu lool teranga lañ koy tuddee ba fexe ba bari mbooloo bari alal bu dee tuddoo diine dañuy jàpp ne loolu barke sax la wax ñu dafa am barke defe ne daraja moo toll noonu fa yàlla motax mu am mbolo mu bari momu motax mu am alal jooju borom bi neena dedet lan tuqni anhum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana wallahu ta suratu saba du sen alal ji ak sen dom yi mbolo de tutur bula koy tudal ci say dom lay tambale ndax sa premier mbolo mom moy say dom ndax mbooloom buñ ñu wuseet ba ñepp dem bala fay say dom ngay dese wa kon say dom ku ñew rek cala cala cala la yokku mais ñi nga xamne mom mo jitt sa mbolo moy ñi la yalla jox nga jur leen fofu la say nit tambale nit ñi ngay am ak nak ñeneen ñu ca wàll si nag moo tax doom yi lay tudd rek mu du alal ak mbooloo ay doom ak nit ñu bari ñu la topp loolu tekkiwul ne moo lay jegeel yàlla indana loolu do le moo leen di jegeel yàlla ak jege déedéet moo tax mu ne lan tuxni anhum amwaaluhum wala awlaaduhum min allahi shay'a du leen jariñ fa yàlla dara te ñooñu sax nga xam dañoo wedd yàlla topp ñu njubuk suñu borom luñ bari bari alal ak luñ bari bari mbooloog ak fu leen nit ñi mën a teg hum waxoodu naar ñoom ñooy mattum safara ëllëg ñoom la ñuy xambe safara ndax ñooñu seen bakkaar day rëy lool wàcc njub gi ba noppi di ko wàcciloo ñeneen dañuy wàcc njub gi ba noppi wàcciloo ko ñeneen dalloo min xablu wa addalloo kasiran dalloo wa addalloo sànko nañu sànkee nañu sanku sanke ah, waaw wàcc yoon bi ba noppi tee ñeneen ñu topp yoon bi mu ne kada bi ali firawda nee na loolu dafa mel ne doxiinu ah, firawna ak ñam àndaloon mbooloom firawna firawna noonu lañ doon doxe moo ku def lu mel noonu rek ñoom nga roy seenu doxin nga jël seen aada nga topp da bu mooy loo xam ne ñii lañ baaxoo woon def والذين من قبلهم اك نك صاح نيلن جيتو وون ني جيتو وون فرعون اك مبولم مومي ньоญا كذبوا باياتنا دانيو ويدي وون ايي سوني بوروم تبارك وتعالى ويدي يوننتييم يابالون فاقذهم الله بذنوبهم سوني بوروم نك غاويل لين مبوغل ما تي سبب سين ويديغا اك سين تيغا في ادونا موم لا لين الاغي bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee rek la suñu borom tabaaraka taala di yeexe mbugalum nit ñi duutu leen mbugal ci lu ñu dëng-dëng defuk ndëngte ci diine ji moom du tax suñu borom di wàcce ci seen kaw mbugal mu leen di faagaagal benn yoon ñu jeex déedéet xëy na mën nañ cee alak ay nit waaye nag du doon lu leen di faagaagal comme ñu ko defee woon xeet ya jiitu woon lam naan fa kullan axas naa bi zanbihi fa minhum man arsalna alayhi xaasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يسلمون يسنى نيونيا ني لبال نالين ني سوف مرد نالين ني ملاك خاتو نتو سين بير نفاتو كان كونك تيب لن بلين دي على خيب ويبقى الكون وبين يوم وتمنى فأقذهم الله بذنوبهم ci sababu sen bakare mo len yobbe lolu wallahu sadidul iqab yalla day ku tar euh mbugal la ci ko xamne day da ngay weddi dang koy weddi mom suñu borom di weddi ay yonentam qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad waxal yow yonent bi ñi weddi yalla ci yahudi ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo xeeb lool di ñàkkal solo ndimmal li nga defaloon jullit ñi ca badar ñu koy xeeb ak a ñàkkal fayda na ngeen leen xamale day satuux la boon des na leen gañe beneen xeex bu ngeen demit des na leen gañe wa tuxsaruuna te des na leen pang ila jahannam ngeen dem jahannam ndax yahud yi sax demul woon ci xeex ba ndax ñoom xeex ba waa la waaye nag bañ ci amee ndam nag dañ doon doyee dal daal ndam loolu julit ñi am ngir bëgg a gën a encouragé ñële ñu bañ a découragé par ñu gën a ñemee xeex ak julit ñi ba tey xamal leen ne lii du dara da ngeen ko desoon a woon rek waaye lii du dara bu ngeen xeexaat ak ñoom yéen leen di gane gagné moo tax suñu borom ne na nga leen wax ne sa tuxlabuun wa tuxsaruuna te des na leen pang ila jahannam wa bisal mihaat te nag safara kum doon sablal. kum doon sab tëdduwaay ëllëg eh, tëdduwaay boobee bu ñaaw la bu metti lay doon bu ëllëgee xad kaana lakum aaya fii fi atayni iltaqataa fi a suñ borom ni yéen yahood yi rëy rëylu di waane ne bu doon yéene yéen kenn du leen gañe ndax moom loolu lañ doon tiitaroo naan nun bu fekkoon ne noonu la jaamaar lool noonu moom du nu mën a gañe suñ borom ne am ngeen firnde am ngeen tegtal ci ñaari kuréel yoo xam ne dañoo daje fii fi ataynil taqata kuréelub yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xam ne ñoom yëkkati diine yàlla moo leen tax a jóg ak kuréelub yéefar yi jóge woon màkka bokkaalekat yooyu nga xam ne ñoom suufeel kàddug yàlla taxawal seen diine neen jooju ñu nekk moo leen tax a jóg moo mu ne fi atun fi sabilillah wa ukhra kaafira amna ci kurel bo xamne day xex ci yoonu yalla yekati diine benen kurel bo mom dafa weddi yarawnahum mislayhim ra'yal ayni way suñu borom dafa defoon ñoom bokkaalikat yooyu yëfar yooyu jógewoon màkk nga xamne bari nañu lol mat junni julit ni moom néew lool waaye suñu borom daa def ci seenu gis nañuy gisee julit ni, dañ leen jàppee loo xam ne ñaar ca nañ leen sax mislayhim dañu jàpp ne julit ñi leen ñaar wallahu yu ayidu bi nasrihi man yasha suñu borom mooy dëgëral ci ndimbalam ku ko soob loolu ndimbal la maanaam noon bi bu xoolee julit ni ni ñu leen di gisee dañuy jàpp ne ñii daal mat nañ nu ñaar sax mat nañ ñaari junni xanaa ndax ñun mat nañ junni te ñoom jàpp nañ ne mat nañu ñaar waaye loolu al ayni rek la gisu bët la fekk na du loola ndax bët man nga cee gise loo xam ne bët day nax léeg-léeg nga gis loo xam ne bokkul ak lam am moo tax gis na ca jibar ya ya firaw na andi woon ñu doon jibar ci kanamu Musa. borom bi dafa ne saxaru ayuna naas saxaru ayuna naas ak jibar mënta soppi li am mu soppi ko mu doon leneen mënta am waaye na yow mën naa soppi sa bët ba nga gisee ko noo xam ne nga ni fi ak buum nga gis buum gi di jaan fekk na sa bëtee ko gisee noonu rek waaye buum gi buum la ba tey buum la ba tey waaye nag sa bët nag moom moo jeng bët mooy jeng léeg-léeg gisee mbir noo xam ne bokkul ak na mu demee ñi itam suñu borom noonu la leen wane ñoom musrikoon yooyu gisu bët ñu jàpp ne jullit ñi mat nañ leen ñaar loolu na ndimbalul yàlla la moo tax mu ne wallahu yu ayidu bi nasrihi man yasha loola da leen di tiital inna fi zalika la ibra mu ne loolu nag ak waaroo ngi ci yéen ñi nga xam ne yéen ay yi di doye ndam li jullit ñi am man ngeen a waaroo ci lii li ulil absaar ak waaroo ngi ci dey ñeel ñi nga xam ne eh, am nañu gis bu leer am nañu itam xel moo xam ne mu jubla muy xalaat dëgg suyina linnaas xubbu shahawaat neena rafetales na nit ñi rafetales na nit ñi bëgg ay banex rafetales na rek la wax nak waxul ki leen ko rafetalal yi mu tudd fi yépp nit da koy aajowoo man na ko am am amin wu dagan booba yàlla moo ko ko rafetalal bu ko amee ci anam gu ñu tere nag gu ñaaw nag booba seytaani moo ko ko rafetalal ndax lu ñaaw rek seytaani moo koy rafetal fa sayyana lahum seytaanu amalahum moo tax rek mu ne zuyina linnaas xubbu shahawaat bëgg ay bànneex bànneex yi noo koy faje minan nisa ci jigéen ki dem takk soxna nam ko war a takke soxna ci lislaam kooku bànneex boobee mu cay am yàlla moo ko ko rafetalal moo ko ko daganalal waaye su fekkee ne daa jaar feneen nag fu dul takk soxna fexe bay ànd ak jigéen ñi ci lu dul yoon kon kooku seytaane la topp moo ko rafetalal wal baniin bëgg bànneex itam ci ay doom doom yooyu it boo leen tegee ci njub duté mbékté ma ngay am ci ñom loola suñu borom tabaaraka taala mo la ko defal su fekké na da nga leen bàyyi rek tegg leen ci yoon wo xamné du yoon wu jub lu leen neex rek neex na la loola kon boba yoonu seytaane nga top motam na wala tattabiu khutuwati shaytan shaytan da am fu mu bëgg jaarlo wal qanatiril mukhantara min min aldahabi wal fidda ak ay rënk yu ñu rënkaat xintaar poids la ci wàllu or lañ koy faral di natt dañ jege daanaka xaw a jege bërigo or yoo xam ne dañ dañ cee tegaat yeneen xanaa tiir nga tegaat ci yeneen mooy mu xantara tegale ko tegale ko mooy compte bancaire yi nga xam ne rek nit ñi dañ koy am di ko bloqué lu baree bare bari ñu denc ko fa mina zahabi wal fidda ci wurus ak xaalis xaalis lay doon lay dina ñu bëgg nañ ko xaalis boo xam ne lu gën a tegaloon ay milliards da ñu ne milliardaire kooku li muy tekki kon mooy milliards yu bari la yor wala ñu ne millionnaire kon mil millions yu bari la yor loolu mu ne xanaa mu xantara loolu nit ñi bëgg nañ ko wal xaylil musawama ak ay fas yu taaru waruwaay yu taaru kon léegi waruwaay yi am léegi muy ay otoog yooyu yëpp dugg na ci biir waruwaay la rek wal anam akuk jur yooyu nit ñi bëgg nañ ko ami nag ami xar ami bëy ami gëléet wal hars ak mbay ami tol yi moy alali aduna. moo mune zalika mataawul xayaati dunia lolou moy yobbalup aduna yoy suñ borom da leen koy defal fi ci aduna ngir ngeen man ko dimbandiko ba meuna jaamu yalla waye nak ko xamne dajale ko rek nak ak wut ko sa jep lol la ah koku boba sheytane mo la ko rafetalal bu boba wallahu indahu husnul maab suñu borom nak delluwaay bu rafet moom ma nga fa moom te mooy yii aayul minan nisa ga takk soxna wal banin nga ñaan yàlla ami doom wal xanaatiiril muxantara nga am wërsëg waaye nag wërsëg da nga cay def la ca war moo kon doo ko rënk di dajale rek di dem ndax boo dee def la ca war kon dajaloo genn dajaloo ga du ko fa dajaloo parce que bu fa dajaloo rek mooy tekki romb nañ luñ ca waroon a def te defuñu ko ci te itam ña nga koy ña nga cay def luñ ca wërtu woon a def maanaam ña ngay yokke alal ja loo xam ne yëfi jaambur la waruwaay yooyu itam loo ca mën a am waaye nag nga def ko ndimbal looy dimbandikoo ci sa jaamu yàlla bañ koo def looy tiitaroo jur géeg noonu itam mbay meeg yépp daal juntikaayu àdduna la rek moyen rek la war a doon ndax lu mu ci mën a doon moom da ko fi bàyyi te dem bu la galankore ba defo li la fi taxa ñewit bu sa dem jotay da ngay dem rek te boy dem do ci yobale dara nak fi nga ba ndax lo aduna dekk nee matawul mataawal dunya dunia kon lolu yi aduna lañ dekk ken du leen yobbu alaxira bagasu aduna la bagasu aduna ku jëm alaxira fi nga koy ba ku jëm alaxira bagasu aduna fi ba zalika matawul xayaati dunia wallahu indahu husnul maab suñu borom mom del way bu rafet deug bo xamne so delo am ak pay am aljanna loolu fa moom la nekk te moo gën nag yii yépp moo tax aay yim ci teg loolu lay wax la nekk fa moom li mu gënee yi nit ñiy kër kër yi fii ci àdduna ak di ko xante woo ak di ko dajale